Ramadan Ramadan Ramadan ya Habib Ramadan Ramadan ليتك دوم الخريف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk jullit yeeg mbokk àdduna yëpp ñu ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq ñaan borom bi mu boole ñu jéggal dañuy wax rek naan defoon nañ ko fekk woon nañ ko daaw fekkee ren yal nañu yàlla may ñu fekkee ko déwén ak jàmm incha allah di dalal ñëpp di jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp ñu tamit di am mbégte ak contentement di leen dalalaat beneen yoon ci seen émission bii nga xamante ne taamu ngeen ko chaque weeru ko ñu tuddee ko chahru ramadan di jaajëfal ñëpp di leen wax rek ñëwaat nañ beneen yoon ak yéen fas yéen ànd ak yéen durant weeru koor gi yëpp incha allah préparé ci ay mbir yu am solo yoo xamante ne amaana sax amu ca woon waaye comme ni ñu ko waxee rek KS TV seen TV la seen chaîne la bi nga xamante ne yéen ko pré yéen seen bopp ba tax na saa su nekk day dox ci seen waaw moo tax rek ñu daal di koy changé rek def ko autrement parce que c'est la jeunesse autrement di baaluwaat ñëpp ak beneen yoon subhanahu wa taala yal nañu yàlla defal xéewal yal nañu yàlla defal sutural yal nañu yàlla defal mucc ak muccule bi nga xam li tax ma wax loolu ndax ku ne xam ne li fi mu toll nii corona bi dafa lëmbee réew mi muy mbas mi nga xamante ne jaaxal na ñëpp ba jaaxal mbokk suñu mbokk docteur yi yal nañu ko yàlla teggi ndax jamono jii kat suñu borom rek moo fi sës donc yal nañu ko yàlla tegge ci ni mu gën a seddee te bañ a lor kenn ci kattanam ak mbaaxam ndax mën na yaakaar dina ko def ci barke weeru koor bi incha allah rabbi di nuyu suñu euh, xalifa généraux yi nga xamante ñoo nekk ci àdduna wërngal këpp ku ci nekk ñu lay fekk sa kër di la nuyu di la ziyaara di la tatagal di la baalu àq bu baax a baax ci weeru koor bi nga xamante ne ci lañ nekk di baal ñëpp àq di ñaan subhanahu wa taala bu boole ñu yëgal seen émission bi nag di chahru ramadan kenn gën ko xam ci weeru koor ñëwaat ak yéen ci ay thèmes yoo xamante yu am solo la comme ni mu koy defee saa su ne rek ba tax na tey ñu ànd ak ànd ak nga xamante ne mooy fiesta mu demal ñu fee yëmbal dala oustaz bi ñu naan Mouhamed Ndiaye mu fas yéene ñu waxtaana lan mooy ngëneelu koor ñu wax ko fadaa ilil ramadan waaye laataa mi ñëw ci fadaa ilil ramadan boobu xamal nañu lan mooy li nga xamante ne mooy koor ndax nit ki li ngay def lu nekk balaa ngay xam ngëneel ya waaye la ca baax la ca bon xamal loolu moom mooy lan ba wax ndax subhaanahu wa taala moom moo ne taarifuuni xabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni kon loolu da dafay jaaru nit ki balaa mu yëf dara mu xam ko ba tax na rek dañuy ànd ak fiesta mu demuñu fee ci yëmbal dégg ñu suñu micro ki nga xamante ne mooy oustaz Mouhamed Ndiaye mu wax ñu lan mooy koor ay ñu dem alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala kon mbokki jullit yi mbokki jaamu yàlla yi ginnaaw ba leen nuyoo nuyoo bi gën si nuyoo yi mu nuyoo bi yàlla tànnal xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo waa ajjana leen wax yàlla jaamu yàlla nekk ci yéen ak yërmandeem ak xéewalam beneen bi di leen ñuy ñëpp kenn ku nekk ci turum ak santam di rafetlu teewaayu waa KS TV muy kaay seetaan sa yàlla na yàlla dooleel leen yàlla yàlla sàmm leen yàlla na yàlla taxaw leen yàlla leen defal leen sutura biir ak biti lépp lu ngeen namm ci seen mbir mi yàlla yàlla eggale ko bu sut seen njort en tout cas kontaan nañ toog ak yéen daal ngir leeral leen loo xamante ne dafa aju suñu wàllu suñu wàllu diine ginnaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi am mbégte lool ci laaj boobu ñu ñu laaj muy laaj bu am solo parce que lépp loo gis rek am na ngëneel rawatina li nga xamante ne mu ngi jëm suñu kanam ñu koy tuddee weeru koor muy shahru ramadan laataa ñuy ñëw si ngëneel yi ñu leeral tuuti ana lan mooy koor loolu day am solo parce que koor dafa nekk benn jaamu yàlla wala benn ponk si ponk lislaamu juróom yi parce que islaamu nit ki pour mu mat sëkk-sëkk faw day mat juróom ci juróom yooyu koor ci la bokk koor nag dafa nekk loo xamante ne santaane borom bi la ndax bu demee si alxuraan dañuy fekk borom bi subhaanahu ci taala si mu ni yaa ayuha allazina amanu kutiba aleykum alsiyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun yéen ñi gëm yàlla te wóolu ma yéen ñi gëm yàlla te wóolu ma man maa faratal ci yéen man maa waral ci yéen koor comme ni ma ko faratale woon ci ñi leen fi jiitu kon loolu li ñu ciy déggee da ngay dégg ne koor nekkul xeetu Muhammad rek ñoo ko njëkk ñoo ko njëkk def yeneen xeet yi di ko commencé si nuux ba ci moom yeneen bi dañ ko daan def mais defe nii moo bokkul biñ koy defee c'est exceptionnel xeetu Muhammad rek ñoo koy defee nii kon ko day ni kon nekkul xeetu xam rek ñoo njëkk a woor mais am na ñu daan njëkk woor leneen li si laxasu mooy dafa am lu ci dëxëñu am na nit ki bu sàmmonteew ak ni ko santee woor bi mu defee ko noonu bu ci génnee day ak li nga xamante ne mooy ragal yàlla te ragal yàlla boobu mooy tax nit ki mucc si àdduna mooy tax nit ki mun a mucc si àllaaxira kon nga dégg ni kon koor koor a noonu koor na bu ñu ko waxee nekkul bàyyi lekk wala bàyyi naan suba ba ngoon donte loolu si la bokk mais koor bu ñu ko waxee biir bi war na woor mais loxo yi war na woor bët yi war na woor bakkan bi war na woor bépp cër bu nekk ci doomu aadama bi dafa war a dafa war a woor waaw nekk mais nekkul bàyyi naa lekk bàyyi naa naan mais waa maa ngi wax naka su noonu wala maa ngi dem foo xam ne war mu fa dem wala maa ngi laal lu mu warta laal loolu da bàyyi xiif ak mar rek mais wóoruloo mbokk internet yi nga ne yéen sa prochaine seen bi di KS TV comme ni ma leen ko waxee rek ñoo déggoon li nga xamante moom la oustaz Mouhamed Ndiaye wax mbokk ko ci koor ndax bu ñu déggee waxam bu baax nee na koor commencé wul léegi du du jamono yonent bi rek lañ commencé woor depuis ay jamono yonent yu bari bari bari daan nañ woor waaye li leen différencier rek mooy ni ñu daan wooree moo ute ñun duñu lekk duñu naan mais ñoom seeni jamono am na neneen daan wootee indi na ci ñu daan wooree indi na ci ay leeral yu am solo bu ñu xoolee bokk na ci ponk lislaam te bu ñu déggee ponk loo gis comme tey jii fi ñu nekk dafa am ay poto yu ko téye poto yooyu moo tax li ñu nekk daanuwul kon diina ji noonu la mel dafa am ay ponk yoo xam ne moo ko téye te ponk yi bokk na ci sahaadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu waxee baatu seede yi iqaami salaat itaay zakat sawmu ramadan sawmu ramadan nag mu ñëw nekk quatrième position loolu may wane tey ku ko deful rek bàyyi nga ci ponk lislaam yi kon daanee nga sa fi nga xamante ne moom nga nekk muy sa diine ndax tey jii kat ci nga dëkk ñaanoo yàlla nga ne poto bi téye sama kër rek dama koy xëcc ndax boo ko xëccee ko nga màbb te bu màbbee gaañ la kon koor farata koor koo xamante ni mën na ko ndax wax na ko ci biir waxam mën na ko da ko war a def su ko mënul jamono ji nga xamante ne moom lañu ko sant boo demee ba li nga xam ne moo teg woon sa kaw bu tegee ko danga koo war a fay kon ñu gis ni koor macha allah lu am solo la te wax na itam koor du lekk ak naan kese déedéet du lekk ak naan ndax bu ñu nee koor jaamu yàlla la ñu bañ ñu bàyyi xel ci xëdd tëdd yeewu ndogu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax balaa ngaa tëdd nelaw wax dëgg neex yaa nga des say say say zikar jaamu yàlla pour promotion la benn weer yàggul kon defe naa li nga xam